Assalamu sama waa tim tim sama Adja Traiteur nuyu naa ziar j'espère que yéen a ngi ci jàmm bu baax Ramadan Moubarak à tous remercie suñu et partenaires sen partenaires, le groupe agroalimentaire Seifa tey sen café bi len parce que suñu recette du jour café bu neex rek la andal. muy beñe dugub suñu une dugub national nañu may laaj recette mais recette simple vite fait bien fait comme d'habitude jëlal sa sungufu dugub man fi sunguf pour mais de trop ma donc c'est la même chose di yow 800 grammes farine la farine de blé nga jël 400 grammes pour levure ñaar yëpp lañu ñu utiliser levure boulangère ben kudd bu mak mo nek ni moy biñu ñuy jaay ci boutique biñu tak ak levure sachet pâtissière ben sachet dina doy sucre 600 grammes parce que bo bolé 800 grammes dugub bi ak 400 grammes farine def 1200 nga diviser ko par 2 600 grammes de sucre muscade muscade doom bi jël xoose ko sama bop parce que mo gëna saf fleur d'oranger kune ne dugub muscade fleur d'oranger sucre, bu saf mo yor ba ñu dugg bu la ci kenn nax essence vanille aussi def nañ ko ci daf koy jox benn goût bu neex mais lu yam rek xorom l'indispensable def nañ ci tuuti coppati bu ndaw mu mën a génne bi complètement donc euh, ingrédients yi ngi nii en plus aussi ndox 600 ml lañ utiliser ndox mi ngi nii bokk na ci recette bi ak diwlin bi ñuy saafee léegi nag jëlal sa saladier nga def ci sa comme ni ma ko waxee sànq man sama sunguf bi c'est un peu granulé dama ko doon araw mu mu sew ma denc ko donc moom laa utiliser mais sa sunguf bi nga wal moom nga jël directement rek mesurer cent grammes def naa ci farine bi ma daal di xaw a yëngal tuuti sotti naa ci aussi suukar bi cent grammes de sucre suukar bu mokk bii rek léegi nag dama ñëw sotti sama muscade muscade doom bi laa jël gratter ko moo gën a fort parce que beñe dugub moom muscade donc euh, sel nous avons def tuuti xorom fleur d'oranger de dugub sans muscade et fleur d'oranger que ruine de dugub <laughs> ingrédients yi nga vraiment essence vanille aussi donc euh, def jël recette simple résultat final sama rakku jëkkër yi xale yu góor yi nee nañ ma Adja sa beñe bi neex na <laughs> ñu daal di sotti levure pâtissière ak boulangère vraiment beñe bu simple bëriwul ingrédient mais neex goût authentique bu beñe dugub te vraiment naanu diwlin bi aussi dina jël diwlin c'est normal beñe dugub boo koy saaf mais nag c'était c'était c'était abordable naanu diwlin yem na ndogu bu neex démb moom ndogu authentique lañ def beñe dugub kese pas de pain pas de croissant rien embaleel ba mu fermé wu hermétiquement yóbbu ko au repos pendant deux heures de temps après deux heures de repos gis ngeen suñu pat reposé wu na bu baax ba formé ay bulles d'air am ci kaw c'est très normal ça montre que pat bi reposé wu na ñu daal di yëngal nag pour mu maase bulles d'air yi nekk ci biir libéré wu yëngalaat suñu pat yépp normal yépp maase mu nekk recette bu neex gis ngeen pat bi consistance bii la war a am warul dang warul ndoxe dafa war a yem ci digg bi nga xamante ne soo koy tibb di ko def ci diwlin bi doo sonn ba pare bu ndoxee ba mu ëpp aussi day waral muy toq toq yu bari ci diwlin bi jëlal sa inde da ci sa papier absorbant nga xamante dina la aider ci diwlin bi teg sa diwlin ba mu tàng du sens nag day tàng nga ñëw jël sa louche bu ndaw rek di tibb di def gis ngeen day tax euh, toq-toq yi ndaw yi su fekkee dafa ndoxee nag daf ciy bari bu fekkee recette bi neex na la aimé ko waaw bësal naa ko touche bi bu fekkee yaa ngi soog a ñëw ci chaîne bi abonné goo dawal gaaw nga abonné ji gis ngeen ñi daal di continuer suñu suñu suñu suñu kii suñu cuisson di def par nànk-nànk feu bi dañ ko wàññi mu yem gis nga nànk rek jarul muy xam dina ñor ci biir dina ñor ci kaw waaw mais soo ko yokkee ba mu sens ci kaw dina ñor mais ci biir soo ubbee dafay tu bi day tuuru da ngay gis ne ñorul donc ñu daal di continuer nànk-nànk ëlbati yee bañ bañee rawante parce que yee ñoo njëkk a dugg c'est très normal donc ñu daal di def nii nànk-nànk di saaf bañ a yàkkamti waaw saaf bi sax yàggul mais bon jarul nag yokk gaz bi sonn ci sa xooy ba pare sa beñe yëpp xëm bi ñu paree suñu ay beñe moo ngi nii xaaral ma wal leen ci biir gis ngeen ñor na te noonu la neexee c'était délicieux man ci laa ndogu ci laa xëdd aussi ci fajar bi <laughs> <laughs> man je suis trop amatrice de beignet dugub ma ci yàqal suma premier njëkkee Fat Seck Thiam moom aussi elle est amatrice donc yàqal naa la beignet depuis France boole nañ ko ak suñu sey Seifa bu amul fenn beignet dugub moom da ngay def sa café bu neex accompagner ko donc ma koy yàqal sama premier njëkkee Fatou sekk Thiam amatrice de beignet dugub waa ak café Seifa remercié nañ leen café Seifa bi neex na naturel na café ak jax kese lañ ko defaree euh, am na sachet bu ndaw am na sachet bu mag 250 grammes 500 grammes disponible au niveau des supermarchés sama ma Traiteur mi ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous très prochainement pour yeneen recette ñu ngi ci réseaux sociaux yépp ñu ngi leen di gërëm bisous